ma jigéen Diop Dieng Sall. Mm-hmm. loo indi tey. waaw ajaratu comme nañ ko waxee tout à rek ñu seetlu ne vendredi bi ñu génn nag rassemblement bi nga xamante ne ni waa F24 defoon nañu ko um, mbooloo mu takkoo takku nag bu ñuy wax ne sax bu kenn mësta mobiliser la ñu ne mekk keroog fële ca place de la nation ñu seetlu ne nag am na ay jafe tuuti gàllankoor yu fa amoon mu ci ku ci mel ni xalifa sal ak ki nga xamante ne ni moo di Pape Djibril Fall xale yi nag am defoo nag ñoom mu nekk lu doy waa génnoon nañu nag jëli quelques réactions ci mbedd mi waaye nañu dem xooli ko ànd ceeg lay jàlloo ak kanji daal di dellu siwaat ah mais Moustapha kaay wax ci sa xalaat Moustapha laaj naa ko mu ni moom nee du wax politique moom saa wax dëgg yàlla man moom dama cee sawaru ah. dëgg yow nag. ah man yëguma ko sax. <laughs> manifestation bi yëguma ko. ah yow affaire bi nu mu rëy nga nekk si biir Sénégal yow. non non yëguma ko yëguma ko yëguma ko ko d' accord merci beaucoup jërëjëf. mooy yooyu moom xam nga dafa doon loo xam ne bokkul sama biir quoi benn instant. d' accord. c' est à dire yooyu dafay nekk ay signal yu fort. ci dëkk askan woo xam ne dañu dem ba amatuñu espoir ci seen ay leader politique manque d' boobu nag mën nañ ne ñenn ñi dañ ko constaté de 1960 à nos jours parce que kenn du ñëw jël sa askan di leen gouverner ci ay waxi kese réew du lu ñuy caaxaane du lu ñuy foowee jàpp ma ne Barth moo tay le xalifa mais Barth dafa nekk nit koo xamante ne nii mooy li may wax rek dëkk dëgg dafa war a am bu dëgg amul ci dëkk rek fii lay mujjee Barthélemy Diaz à l'heure actuelle régime yi lu leen neex ñu manipuler ko ko Barth nag léegi dafa dafa dafa aptatul pour and ak askan wi di défendre li mu daan défendre parce que boo nekkee maire de Dakar munoo defal yenn activités yi sans autant que président bi nga xamante ne moo fi nekk ànd ci ak yow deuxièmement nga am ay contentieux justice kooku bu wi ci kaa la ñu révolutionné ko askan wi xamee bu ñu ko xamul bu leen ci woowee bu ci naree perte day wëlbati ko waat négocier ko donc loolu xam nañ ko ñoom am nañ problème seen problème mooy que dafa am benn nit bu génn won askan wi que ne ñii dañ leen di fontoo ñu naan est-ce que dëgg la mu défier leen mënuñu ñu génneel benn résultat wala benn lenn lu concret luy wone que ne Ousmane Sonko li muy wax askan bi du dëgg mais di ko di ko di ko di ko jiiñ di wax ay waxu naq saxan nag ay waxu xale nit ñi toog di leen déglu loolu mooy tax nit ñi di leen di gën a vomir li leen sonal mooy que bëggatuñu gis kenn ku dul usman Sonko askan bi léegi nag clan yi leer ñoom ñëpp far nañ moom kese taxaw na nële dëgg la yore ñii leneen lañ yore donc constat yooyu nag bu ko nit ñi di def léegi fi mu jëm nag mooy que ñoom war nañ changer bu ñu changé wul xale yi fi ñu jëm ak ñoom du leen neex voilà mu ngi noonu ajaratu ñenn ñu bëri sax bi ñu leen tàllale micro bi dañu lànk ne euh, duñu nangoo wax euh, ñenn ñi ne bëgguñu benn yoon ay jafe-jafe ñii ne koo si laaj mu ne la sax far yëguma ko mu nekk beneen problème encore une fois waaye nag euh, Omar ñu seetlu que ni. même keroog ñi nga xamante ne ni ñoo nekkoon muy leader yi nekkoon ci place de la nation pour ñu maîtriser woon sax foule bi fa nekkoon ak di leen wax di leen noppiloo nga seetlu ñenn ñi sax dañu jëloon ay buusu ndox di ko sànni ki nga xamante ne ni moo di xalifa sàll mu nekkaat beneen euh, jafe-jafe boo xamante ne ni lan nga jàpp ni moom moo dem ba dal ko mu dal ki nga xamante ni moo di xalifa Sall te bu njëkk daawoo euh, seetlu yooyu gàllankoor ñu ko teg. parce que daa am lu xew ci diggante bi. Hmm. teg ci xalifa am na fu mu juum maanaam mbooloo mu ne da ngay xool ban mbooloo la. Hmm. est-ce que war naa fi wax est-ce que waruma fi waxee est-ce que war naa teew est waruma teew maanaam da jàngat yow mbooloo bi balaa nga parce que communication da bokk ci ngay wax ak ki lay déglu. Ah, mais yàgg na pas dem ñu koy déglu nag. non non dama ne daa am lu dox ci diggante bi hmm. maanaam ba muy wax nga koy déglu xalifa la woo demagul photo ak Macky Barthélemy melagul ni mel. mais ci diggante bi daa am lu fi xew te gëm naa bis boobu lu tax ñu autoriser manifestation bi maanaam ruumal ruumal ak ëffal bokk na ci parce que nguur gi tabewul noonu ci autoriser hmm. mais bu demee ba autoriser waa F24 pour man ñu ngi doon xaar lu mel nii parce que ñoom day nekk seen intérêt loolu daal bi ñu xëyee li ëpp seen journaux waxuñu ñi mobilisation bi fees na toj na ak la fa nekkoon ci mbooloo mais lan doon gën a rek mooy Khalifa wax na yuuxu noonu ko Pape Djibi wax na yuuxu noonu ko hmm. ñii wujjeeg ñoom ci wàllu politique pour ñu ne Yewwi Askan Wi tas na beneen bi ci topp mooy Ousmane Sonko avant mbooloo mi di am da ngay seetlu mu ne sant moo ñu fa yuuxu kenn kon xamoon na ni dinañ yuuxu le fait rek mu koy aye xam nañ lu mën a ne la ak lu mën a am la mais danoo toll ci benn jamono boo xam ne carte gi dafa commencé di leer Ziguinchor bi ne démb am na ñu fa dem léegi ñi léegi Yewwi mi ngi commencé leer discours yi ñu ngi doog a xam ñan ñoo gëm le projet Yewwi ak ñan ñoo nekkoon ci leneen. Mhm. léegi nag askan bu ñu mënee dem ba def la part des choses ci ñoo xam ne safuñu yàpp ñu jën duñu géej duñu yët. Mhm. mais ñooñu il faut ñu delloo leen ci seen place naam man ànduma ci ñu yuuxu ci ku mën a doon parce que bëgguma ku mu yuuxu mhm. mais. dafa am yoo xam ne tey jii nit ki moom moo koy teg boppam pour man xalifa waru fa woon wax ban ko yuuxu parce que kilifa la ak fi mu egg ci réew mi xamoon na ne moment bi du moment bi muy ñëw di jël kàddu ci kanamu public boo xam ne dafa acquis à la cause de Ousmane Sonko. bari na fa ñu fa teewoon Ousmane moo leen fa teewoon. Mhm. keroog maa ngi koy wax benn waaye nee naa ko bari na ñu jël discours discours bi ñu yëkkati ci kanamu mbooloo bi bokkul ak bin indi woon mais danoo ñëw ba ci moment bi ñu xam ne fii public gu Sonko la. kon da fi wax li neex Ousmane Sonko ak li ko arrangé pour mm. nga mën a wax mu déglu la mais boobu mu ñëwee di wax leneen kenn du la déglu pour man xalifa loolu la waroon comprendre balaa muy ñëw di teew mm-hmm. mais il faut que tamit sénégalais yi loolu lépp day dellu ci ñoom ni nan leen respecté ji nga mbir mi boo ko nattee ci justice bi natt ko ci Sonko natt ko ci xalifa ñoom ñëpp lépp day dellu ci askan wi nan xam lan la askan yu bëgg mm-hmm. ñoom ñu nekk bis bu ñu xamee li askan yu bëgg ñu nekk bu boobaa askan wi dina leen respecté. Mm-hmm. mais aussi tamit li am noonu krok ci mbooloo pour man dafa war a gën a ibbi bopp ñu yor réew mi ak ñi politique Sénégal. Mm-hmm. ñu xam kan mooy Ousmane Sonko ñu respecté ko jox ko cëram. dama ko mu sox sam benn chronique ma ni bu nekkoon ab chef rebelle wala mu nekk ab chef de guerre doon koo xam ne mun nañ wax ne li mu ne du dëgg. Mm-hmm. mbooloo moomu képp kun topp sa ginnaaw jox la bopp dañ la war a cëral. te xam ne yamoo ak ñëpp parce que bu ñëpp yamee am ñu gedd seen cër te Ousmane Sonko dafa yamul ak ñëpp. Mm-hmm. pour man ki juum dëgg-dëgg. Mm-hmm. mooy ki ko bëgg traité comme ni muy traité ñëpp juum nga dangay dégg ko ni la Ousmane Ngom nan defoon Ousmane Ngom jëli Ousmane Ngom du Ousmane Ngom. Mm-hmm. il faut ñu peese ko bu baax a baax. xam la lay peese pour ñu mën ko jox cëram. ñoom xalifa aussi tamit ba ñuy wuy ji mag yi pour man loolu lañ xamul woon. loolu tax mbir mi këpp seen kaw mais benn méthode laa jox booy. bu kenn yuxootu kenn képp ku ñëwati taxaw di wax boo leen saful ñu jaza crise la maanaam boo jëlee kàdduñu ñu wan ginnaaw bu boobaa nga xam sa bopp. <laughs> jaratu yuuxu. en euh, doy na waar c'est compliqué su mu mel ne nag léegi euh, bal bi dafa tourné bu njëkk ba da nga daan gis leader bi ci boppam moom moo doon contrôler ay euh, partisans am wala ay sympathisants léegi nag dafa mel ni jeunesse bi ak peuple bi ñoom ñooy contrôler leader yi. bu nu waxee ni que mbooloo mi mbooloo Ousmane Sonko la. Euh, ku ci mel ni ki nga xam ne moom moo di Khalifa Sall dem fa ñu yuuxoo ko te am lu fi xew ci diggante bi donc man su ma doon Khalifa du ma dem man dama dem foo xam ne dañ ma fay yuuxoo loo xam ne non non dafa am ci diggante bi lu fi xew euh, président Macky Sall euh, recevoir na ko ànd naag Barthélémy Diaz am na lu xew loo xam ne diggante Barthélémy Diaz ak Sonko Ousmane Sonko nii mi ngi commencé di yàqu Khalifa Sall nekk ci li nga xam ne moom moo di nitu Barthélémy Diaz mm-hmm. donc mu dem fi nga xam ne fa la nitu ay Ousmane soo ko nekkee ay nitu ñi nga xam ne dañ koo bëgg dañ koo fonk nekk fa nga dem di wax mm. am na foo xam ne boo fay boo fa daagoo booy daagu da ngay daagu fu na mm. nobe mbaadu tànk day tàllu baa mu bànk mu bànk dem na <laughs> yuuxoo ko am na ñoo xam dañoo dañ doon def dañ doon tur ndox ci mbuus sax di ko sànni mm, di ko sànni loolu naa ñàkk mm-hmm. am na ñoo xam ne seen moroomu papa am na ñoo xam ne seen nijaay wala dara mm-hmm. même moom man bu ma doon mam man bi ma ko fa gisee damaa am na ma naqari ndax war fa war dem. dëgg mu mel ni léegi xale yi ni ñu bëgg rek ngay doxee noo say affaire dara du ci baax te aussi nga sànniwaale si euh, réaction mbedd mi gars yi léegi. koo laaj waaw mbedd moomu sax laay njëkkee. mu mu mu mu daw caméra. <laughs> waaw xam nga mbedd mi moom laa doon wax ne li nga gis nii sax lu garaaw la. Hmm. maanaam nit ñi dañu bëgg a jóge ci cadre wax di jëf. te loolu mooy li garaaw parce que mm. dafa am depuis quelque temps dafa gis nga sànq dañuy seetaan ci suba gi manifestation yi am Casamance. Mm. maanaam booy yi am ñu leen di filmer maanaam ñoo xam dañuy filmer kii bi rek booy sànni leen ay xeer ne leen bu ñu kenn mm-hmm. filmer mm-hmm. maanaam léegi eh, mbir mi dafa am fu mu jógee parce que loolu yëpp li ko indi mooy Euh, ñoom ñi ngi def loo xam ni ñi ngi gën a tax booy yi di gën a ñaw mm. di gën a xalaat parce que bu njëkk ba dañ daan wane manifestation mais bu dee dañuy wane manifestation ba dafa ñu sukkandiku ci vidéo yi dem jëli la mm. tey jii ñi ngi laaj ay nit ci mbedd mi liberté yi mi ngi gën a wàññeeku nit ñi dem nañ ba ñemeetuñoo wax seen xalaat ci mbedd mi mm-hmm. léegi lan la ñuy wax bu leen jël mais kooku am na xalaat am na gis-gis am na lu mu nar mu wax ko nag mooy li la Lamine doon wax ubbi maramet bi cóolal li génn maanaam mu wax naqaram moo gën mu denc ko bu ko dencoo xamoo lu mu nar donc yooyu nga xam ne mi ngi commencé di am yooyu mbir la yoo xam ne mbir yu doywaar la donc il faut que euh, ñu xam ne tamit boo privé nit ñi ñu wax bon mën nañoo jëf te bu boobaa musiba mën na am ci réew mi mm. leneen li am xalifa euh, man damay wax ni kenn la war a mere warta mere ñii muy yuuxu mais Barthélemy moom rek la war a mere parce que moo ko teg li nga xamante ni bii moo ko dal. est-ce que mi euh, koy contrôler nag. waaw maa <laughs> xam man jàpp naa ni xalifa contrôlé wut Barth ah. damay jàpp sax ni Barth ay contrôlé xalifa. Mhm. man moom loolu laa gëm ko man gëw ma ni Barth moom parce que Barth day waxee nu ko neexee. Mhm. ci mbir yi maanaam moom lu mu bëgg a def da koy def quoi. xalifa nag bon <coughs> dafa mel ni bart danaan ko mooy sama kilifa mais. jëfewu ko wax rek la yam mhm. mais ne ak li muy jëf bokkut donc loolu mooy li nga xamante ni bi euh, mooy li ne léegi nag bi mu ñëwee ci mbooloo mi euh, ñu yuuxoo ko bon xam nga mbooloo mbooloo mi man déglu naa ci suba gi ci bis bi ma gis ay vidéo yoo xam ni donc pour te dire que waa kër xalifa yi préparé woon dañ ne dañ leen di yuuxoo parce que gis naa ñoo xam ne dañ ne xalifa Sall suñu leader ku ko yuuxoo di nga xam Hmm. partager seeni vidéo dugal ko ci TikTok bi te it moom préparé woon na mbooloo moo xamante ni bii ñoo ko war a dooleel mais lim fa fekk moo tax mbooloom noyewu kenn du ko gis parce que lim fa fekk ci ay nit moo tax ay nit mënoo leen a contrôler di leen euh, maanaam budget boo mën a dégager mënoo dégager pour jote kii wa feeñ fa hmm. moo tax it feeñu fa mbooloo ma dañ leen a noyé mais ña demoon xam nañ ni xalifa am na ñu ñu jëloon solal leen ay yére am na ay xale yu jigéen sax yoo xamante ni bii dañ doon ñëw euh, di jéem a saaga di wax Ousmane Sonko di ko wax wax ju ñaaw booy di ko filmer naan waaye dañoo bëgg ñu dal ci seen kaw waaye duñu dal ci seen kaw. Mm-hmm. comprendre nga moo tax booy daa def ni nga xamante ni bii noonu lañ def léegi nag loolu nga xamante ni bii mooy li am foo daan ñëw ñu lay tàcc nga jékki-jékki ñëw fa ñu lay yuuxoo. te ñeneen ñëw kenn yuuxoowu leen xoolaatal sa digganteeg mbooloo moom ndax yow ci diggante bi noo toogee parce que gis nga jamono jiñ toll ni eh, gis naa Déthié Fall ne gaa yi noppi leen gis naa tamit eh, kii Abbas Fall ne gaa yi noppi leen ak ay El mhm. mais dama ne gis nga mbooloo mi Sonko moomu leen contrôlé wu leen mhm. ay sénégalais lañ yu bokk ak moom gis-gis jàpp ni mooy ki nga xamante ni ki gis nga mbékkuñu mbooloo moo xam ne Sonko da leen di digal ne leen bu leen wax lii duñ ko wax de bu ñu amee ci yow ngëm-ngëm dañuy dal bu ñu amee ci yow ne sukaa mii respecté wut li nga xamante ni bi mooy euh, seen projet maanaam bu Sonko waxoon ne bu leen wax dara sax dañ lay wax dara parce que ñooñu Ousmane Sonko joxu leen dërëm mm. yaa ngi dégg ñoom au contraire ñoom ñooy jël seen xaalis di ko financé ci seen parti ñoom ñooy jël seen paas ñëw est-ce comprendre nga li ñu gëm mooy li nga xam ni moom nga leen di wax ñoom gëm nañ ni projet bi ñu ne képp koo xam ni kii nekk nga ci ñu jàppale jàpp ci ak ci loo mën a nekk ñu jàppale la fi mu toll da gis boo yoo xamante ni bii tey léegi sax kuy commerce ku ne sax mën a utiliser kii bi daal ne waaw man de gis nga léegi Sonko laa mm-hmm. moo tax fi mu toll kii booy ñëw di jënd gars yi façon bu nekk dañ koy def pour parce que Sonko fi mu toll nii dafa nekk marque boo xam ni. Ah, loo ko jaayee mu dox. tey jii sukkaa boo tegoon fii sa kii ne lambale naa parce que ñii dama ne euh, dama damay kii ndekete waa APR fi nekk daan ne jënduñu bu subaa booy togg première heure ñu koy commande <laughs> yaa ngi dégg c'est que foofu lañ booy toll. est-ce foofu lañ toll quoi. mais bétti da ngay gis koo xam ni day ñëw daal ne waaw man samay abone vraiment ñu ngi nii nee nañ dañ may bàyyi ndax sonko mën nañu wax sa seen benn rakk ne leen commentaire al daal ne waaye bàyyi leen ma man sonko laa gëm amagut dara boo yaa abonné wan ko ne ko ñun ku fi kii ñu lool la comprendre nga. léegi nag yow moom boo demee ba ci yàgg nga bëgg a changer tamit doxalee neen ñu génnaat. waaw maanaam mbooloo lañ moo xam ni lii lañu gëm li ñu gëm ñi ngi ci. ku bokk ak ñoom gëm-gëm ñu soutenir la ku bokkut ak yow gëm-gëm ñu bala ton nag depuis que ñu tàmbali ba nëga ci lancé boobu mooy li nga xamante ni bi ñoom ci la ñuy dox waaw tey jii ñoom ni ñu teewee internet bi nii loolu la tey télé yaa ngi nii wax naa la ko fi waxatale ko béti ne la télé yaa nii télé yi nga xamante tey jii barki démb boo njaay TFM fi jiitu woon tele yi daan ko bàkkoo tey Walf lam ko rawee fas mënu koo daw boo yooyu la dañoo gis ni Walfadjri mii kat nekk na télé bañ ñoom dañ koy wax sax ne Walfadjri mooy seen télé donc léegi ni nga xamante ne bi noonu lañ ko joxee bopp di ko partagé mu yegg fu ne loolu waa Walfadjri kan moo ko mën man daa mën a xëy di partagé noonu fépp la ñuy dugal mbir yi yëf yi day dox far force bu ñu invité ki koor gaa ngi nii TFM def na invité bu dul invité bi jinne dañ koo duma mm-hmm. yaa ngi dégg am na ay jamono bu ñu la waxee ne la ngañ demba moom lañ invité ñi ngi invité fee ministre sàngam da nga naan Ngagne Demba ku koy seetaan ay jamono laa la wax mais léegi bu ñu nee Ngagne Demba la ñu teg fii booy ne seen élément moo nekk Walfadjri télé boo mën a dox ci guddi googu ak koo mën a invité dañ lay dañ lay duma parce que loolu mooy li nga xamante dañu dañ koo téye mm-hmm. comprend nga nit ñu téewee loolu nag ñoom xalifa loolu lañ war a xam ne noonu lañ téewee tamit rassemblement yi ñoo fay ñëw ñoo fay ëpp mm-hmm. moo tax li Omar wax loolu jara bàyyi xel xalifa waroon na xam ni maman bi du maman bu baax mu porte malaat bañ a dem parce que moo tax li ko fa dal dal ko fa te yenn yiw kilifa wala dal waaw ma jël ko xaalifa bu bu ñëwul woon euh, loo mooy gën a graaw pour man parce que kon dinañ ne cautionné na li li Barthélemy def parce que connaissant xalifa ak ni mu mel bu ñëwul il se dit bu ñëwul rek dañ naan li xalifa li li Barthélemy def moom cautionné na ko. donc ko neexul. waaw waaw waaw d' accord d' accord d' accord d' parce que bi mu woowee. waaw ci yum ci euh, ci waaw ci. Maimouna Ndour Faye mm-hmm. mais da ko woo direct. Euh, ba noppi Cheikh Tidiane dane li mu wax dane lii neexul xalifa mais xalifa da ko woo waa mm, kii ci loolu. waaw waaw waaw waaw léegi nag loolu moo tax du l'importance mu ñëwoon. parce que ñàkk ñëw bi moom moo doon gën a flagrant moo doon gën a metti que yuuxoo ko def. Mm. man man man loolu moo ci sama gis-gis. tëjal Adja man daal Adja boobu du dem foo xam ne bu ma eggee ñu salaamaaleykum maaleykum salaam ñu yuuxu ma ah mais si ah an kay nag Adja li fi am li fi am. <laughs> mbooloo mi daal Ayda Mbodj la mu ca wax. Ayda Mbodj wax na leen ko fii waxaat leen ko. <laughs> ne mbooloo mi mbooloom Sonko la. Ayda xam nga Ayda dafa nangu xam nga non c'est que Aïda Mbodj c'est que ñoom li ñuy wëndeel ah. Aïda Mbodj wax na ko waxati ko nee na Sonko suñu sampion mhm. nee na ñoom ñii ñu bari dañ ko wax naan ko ñëw ci moom di ko yóbbante parce que ni mu mel ak Sonko wax ko mu ñëw sama dëkk ah, bu ñëwee ma gañe wallaay wax na ko tey ñu ngi dégg maa ngi déglu kii treize kii fay xaw ma bokk ci nee na amuñu benn candidat ku dul moom Sonko non non ku ci des kii lay maye koor nee na amuñu kenn ku mm. dul Sonko. mënoon am li nga wax ni kii Thérèse Faye. non ma jaaxal ba ni ko muy Thérèse. dama juum moo tax ma ne ko moo tax dama ne xaw ma ko duma ko dégloo nee kenn ku dul Ousmane Sonko. nee na moom la ñu yaakaar moom moo fi ne. bu doon bu yàlla bu ko yàlla dogalee incha allah moo koy ne. li li kii wax sànq Omar wax sànq. moo fi ne nit ñi yemuñu. moo fi ne de. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si wax na ni. bu ñëpp yemee. am ñu gedd seen cër. am na ñoo xam ne seen borom am na loolu loolu garaaw na waaye waaye waaye waaye ñi nga xamante ne nii moom. Ablaye Wade xamoon na ko ba mu jëlee président Macky Sall doon ko kii ak ay kii ak yooyu nit ñu jóg. Hmm. deltu na ginnaaw. Hmm. donc pareen saay njiit hmm. dafay tu xam maman boo xam ni. war nga Ablaye Wade dañ ko doon wax di ko di ko saboté ci loolu mais loolu da ngay gis ni euh, tey jii moo nekk wayam. dëgg la parce que dañuy wax ne Ablaye Wade ah, reculer mu doon reculer 23 juin lu ne mënoon na xew dafa mais am njër lu rek dafa am lu rëy lu mm-hmm. a puus que boo puusee mën na jafe-jafe jafe la mais aussi nit ñi ngay dajal ci mbedd mi léegi nga leen di laaj ñu la naan bugguñu nga dékk ñu suñu caméra loolu tamit problème la léegi téléphone sax nit dala koy woo ngay kii parce que man arrivé na ma avant ma dugg sànq waa ji daf ma woo privé mm-hmm. bëgg nekk di expliquer mm-hmm. ma ko non. du ma ah, parce, parce que aussi je rien compris. Mm-hmm. parce que aussi privé la ma wooye naan maay diw mm-hmm. wóoru ma ni diw la. Mm-hmm. ma ko après. parce que loolu da am lu ñu yóbbu ci niveau boobu. te damay damay ñaan benn affaire man du jëmi Ousmane Sonko wala Macky Sall. di nga 23 juin Ablaye Wade bi muy jël décision jëlu ko parce que opposants yi ñoo taxoon mais askan peuple bi ji nga pour man ñi justice di militaires yi gëpp nan bàyyi xel peuple bi. ñu jërëjëf en tout cas daal doy na waa ajaratu mais nag dañuy ñaan rek yàlla na jàmm sax fi defal ko ñëpp nag euh, parce que loolu rek la ñuy souhaiter vraiment ajaratu ñu leen di jox di daje ba xamis incha allah. incha allah ma jigéen Diop Dieng Sall li nga indee ci amatina solo.